jërë ngeen jëf sunu mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne yéen ngi ci Bawal Info TV mbokk yi nag ginnaaw bi président Macky Sall recevoir Jibril Ngom euh, ci pale bi dafa mel ni nag fi ne nii frustration bi ma ngi gën di yokk ci biir APR ndax euh, bis bi photo yi fuité rek ci internet bi bëri na ay déclaration yoo xamante ni am na ci fii ci Bawal Info euh, dégg ngeen ay responsable politique yoo xam ne. ay ndawi APR lañ yu yëkkati seen kàddu euh, naqarlu président Macky Sall mi recevoir Jibril Ngom te ñoom ñu yàgg sàkku président recevoir leen musu leen a recevoir ndax xam ngeen ne euh, ci Sénégal gi yëpp bëri nay gox yoo xam ne da ngeen di dégg ndawi APR ya euh, wala jigéen ña fay nekk wala cadre ya fa nekk di wax ne ñoom ñoo ngi sàkku président Macky Sall recevoir leen waaye ba mu toogee 2012 ba léegi musu leen a recevoir loolu yàgg ngeen kaa dégg moo tax ñu baree baree bare ci APR jamono ji dañoo mer ba fut ndax dafa am ñoo xam ne dañoo meroon ci investiture yi ndax gis ngeen ne bëri nay ndaw yoo xam ne wane nañ seen fristration ci investiture yi ci euh, tête de liste yi nga xamante ni moom lañ leen imposé lii nag ñëw daal di si daal di si dolleeku waaye nag bu dee nag fii nga xamante ni tey mooy région de Diourbel yéen ñëpp xam ngeen ne ndaw ñi dëkk ci Bambey ndaw ñi nekk département Bambey ndaw ñi nekk ci département Diourbel ndaw ñi nekk ci département Mbacké yàgg ngeen a dégg ñuy wax ne président da leen a recevoir te président musu leen a recevoir waaye tamit même cadre yi nga xam ne tey ñoo nekk ci département bu Mbacké yàgg ngeen a dégg cadre di wax ne président Macky Sall war na leen a te musu leen a recevoir aussi gis ngeen ñi nga xamante ni tey ñooy maire yi dëkk ci département bu Mbacké ci monde rural bi ñoom am na ñenn si ñoom doon nañu sàkku président recevoir leen ci programme PUDC bi ci phase 2 bi mujj gi sax ñoom dañoo mujjee dem sëñ Bass Abdou Khadre moo leen recevoir kon ngeen gis ne bëri nañ ñoo xam ne yàgg nañoo sàkku ay audience ci président mujju musul antu waaye nag bi ñu gisee ne recevoir nañ Djibril Ngom jamono ji nag mbir mi dafa mel ni tulleeg màlle fii ci Touba nag dafa am ay ndaw yoo xam ne jamono jii ñoom dañoo mer ba fut ndaw ñi nag euh, dañoo mujj sax sos ak kuréel kuréel gi tuddee ko reconnaissance ñoom Abdou Fatah Diop même Abdou Fatah Diop moomu tey bu ngeen xoolee ci chaîne YouTube bu Baol Info TV gis ngeen fi euh, kàddu yi Abdou Fatah Diop def nañ man ak moom interview mu wax lan moo tax ñoom ñu taxawal reconnaissance ndax nee na ñoom dañoo gis ne président Macky Sall wégu leen président Macky Sall faalewu leen ñoom yàgg nañoo dox pour président recevoir leen euh, musu leen recevoir pour ñu waxtaanee parti politique beeg seen i jafe-jafe wax na tamit ne dem nañ ci ki nga xam ne tey mooy ministre Dame Diop. pour mu recevoir leen bind nañ ko lettre mais musu leen a recevoir musul yee yàbbi ci mbir mi loolu moo tax ñoom Abdou Fatah Diop taxawal seen kuréel tuddee ko reconnaissance ñoom nag naka jekk dañoo meroon ndax dañoo gisoon ne kenn considéré wu leen waaye nag bi président Macky Sall recevoir it ak Jibril Ngom nag maanaam nag ñoom jamono ji mer ma ñu meroon dañ koo gën a yokk ndax sax nee nañu élection locale yii di ñëw ñoom dañuy def campagne pour list benn Bokk Yaakaar daanu ci Touba ci département bu Mbacké ñoom Abdou Fattah reconnaissance ay ndawi APR lañ ñoom dañuy def campagne pour li nga xam ne moom la président Macky amoon électorat ci département Mbacké ñoom dañuy def campagne pour électorat boobu wàññeeku ndax ñoom jàpp nañu ne recevoir gi ñu recevoir Djibril Ngom te ñoom ñu yàgg jàppale Macky Sall yàgg yàgg ko sonnal te recevoiru leen loolu bokk na ci li yokk seen maire naam naam ñoom meroon nañ naka jekk naturellement ndax fii ci Touba bëri nay ndaw yoo xam ne euh, dañoo lànkoon ne duñ dugg ci liste bi am na ndaw yoo xam ne dañoo lànkoon bañ see dugg même fii ci tubaa am na fi ay leader yoo xam ne am ay leader yoo xam ne bi ñu leen bëggee dugal ci list benn bokk yaakaar bi ci liste départementale bi dañoo lànk même ci commune Mbacké am na si ñoo xam ne dugguñu ci list euh, list communal bi mel ni. gars yi dañuy bañ a dugg ci biir liste benn Bokk Yaakaar bi waaye nag élection locale yi dina metti ci benn Bokk Yaakaar dina metti ci président Macky Sall soo moytuwulee ndax fii ci Touba dafa am ñu baree baree bari rawatina kilifa yi dañoo gis ne dañoo seppi ñi nga xam ne ñoo doon xeexal Macky Sall démb ak bërki démb dañ leen a seppi ginnaawal leen ci élection locale yi ndax nag élection locale yi li tax ma ne leen dina metti Cheikh Abdou Bali bëri woon na ndaw ñu ko topp ñoo xam ne jamono ji ñoom ndaw ñooñu dañoo mer ba futt te du Cheikh Abdou baali moo leen di wax jaar leen fii ñu jaar fa jamono ji ñu toll ndax maanaam mbir mi sax euh, li ñuy wax mooy mbir mi sax xas na ba dem ba pare ndax ndaw ñi waroon Cheikh Abdou baali am na si ñoo xam ne dem nañ fekki docteur Ablaye ñaan am na si ñoo xam ne dem nañ fekki sëriñ fàllu Mbacké am na si ñoo xam ne dem nañ fekki sëriñ Abdou Baara Doli bokk gis-gis même ñoom euh, ñi nekk réew mi ñoom Moustapha Missiré réew mi buy Idriss Seck dem nañ ci coalition euh, coalition euh, bu bokk gis-gis ànd ak Cheikh Abdou Baara Doli ñi nga xam ne tamit ñooy waa Madakaaw ñoom Galas Diop dem nañu fekki Serigne fàllu Serigne fàllu Mbacké ndaw yi ñi nga xamante ni nag mooy base el fi ëpp électorat boo dee xool presque muy daaru xuddoos ak daaru marnaan ndax daaru marnaan ñoom galas jóob ñeneen ak ñeneen ñu nekkoon foofu ñoom ñëpp instant bi mer nañu ñii dem nañ ci fàllu mbàkke sañ fàllu mbàkke ñii dem nañ eh, si docteur Abdoulaye ñaan même biir daaru xuddoos eh, ndaw ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ndax Cheikh baal yi commencé woon na eh, di am ay nit ñoo xamante ni ñoo ko doon jàppale foofu ginnaaw bi ñu ko investirul ndaw ñoo ñëpp tasaaroo nañ ñii dem nañ ci yeewi askan wa moo tax yeewi askan wi këpp këppal nañ jëla jëla jël ba doyal Euh, bokk gis-gis jël fee docteur Ablaye ñaan jël fii ñii ndaw ñi gedd euh, maanaam mbir mi dafa pëccëxoo jamono ji ci benn bokk yaakaar maanaam amul benn jataay bu ñuy toog Touba ñoom responsable yu mag yi te waxtaanewuñ seen mer ci liste bi beneen bi mooy euh, jël Matar Diop mi ñu investir tedd li si benn bokk yaakaar am ku ko jël yóbbu ko ci kilifa diine yi defal ko présentation bi war ba léegi loolu amagul ndax Matar am na ñoo xam ne xamuñu ko am na ñoo xam ne tamit dañu koo xaw a xeeb loolu tamit am na ci te fii nga xam ne mooy Touba tey bu la marché Ocass commerçant yi jubloo rek pour nga gañe dafa yomb est-ce que Matar commerçant yi jublu nañ ko ndax fii ci Touba nag li tax président Macky Sall yi gën a am jafe-jafe benn bokk yaakaar Cheikh Abdou Bali taxawaayam euh, ñëpp gis nañ ni mu mel jamono ji maam xëri Mbàkke doon na def ay activité politique bu baax ay jamono doon def ay financement si jigéen ñi gis ngeen kañ la gëj a yëngatu ci wàllum politique paata jaxate déggoon ngeen ay cëfër cëfaram paata jaxate moom tim amoon taxawaay jëloon ay ndaw doon leen jàppale kañ la gëj a def activité politique Cissé Lo Moustapha Cissé Lo gis ngeen ko moom tim taxaw nee la def ay ndawam ñoom tim ñoo nga mer ba fut loolu mooy li nga xam ne moo am ci biir Benno Bokk Yaakaar li ci am mooy euh, ndaw ñi dañoo frustré cadre yi dañoo frustré mer ba fut am na ñoo xam ne ni ñu taxawalee list bi neexu leen ñii ni ñu tànnee ñi ñu jiital neexu leen loolu mooy réalité bi waaye nag mer mi dina gën a yokk ndax fii ci Touba ndaw yi APR yi yàgg nañoo wax dañoo bëgg ñoom président recevoir leen ñoom sax président recevoir leen pale ba sax ñoom waxuñu ko mais président bu ñëwoon Touba sax recevoir leen au moins euh, ay cinq minutes ñoom presque doy na ndax Jibril Ngom maa ngi koy dégg muy wax ay 15 minutes mais ndaw yu Touba ak ndaw yu Mbàkke moom boo leen recevoir oon 5 minutes sax maanaam euh, ñoom ñu kontaan ndax seen seen ndax ñoom ñi ñi seen adversaires yi li ñu leen di faral di wax mooy yéen président amul considération si yéen ndax mosu leen a recevoir loolu lañ leen di xase ku si bokkal nit plateau jataay loolu nga ko njëkk a wax yéen président amul si yéen considération ba ngeen ko dalee jàppale ba léegi euh, gis ngeen ni mu demee Euh, réalité bi beneen bi mooy même sëñ moo Modou Baara Dolli moom tamit day jàppale président Macky Sall mais fi mu nii dem na ba Njumaan mairie mairie bu Njumaan lay xëccoo xam ne kooku kon campagne kon xam ne kooku moom du campagne ko biir Touba du campagne ci département bi euh, du campagne liste département daal moom ma nga ba Njumaan beneen liste sax la demee demewul sax si benn bokk yaakaar beneen liste Fallou Ndiaye gindi askan wi moom tamit ci a bokk ci membre fondateur yu APR yi. ànd ak Macky Sall doon ko jàppale Italie ñëw ak moom Sénégal sëñ Fallou Mbacké Fallou Ndiaye gindi askan wi moom tim bàyyi na fa benn bokk yaakaar dem na ca bokk gis-gis nga dem biir Mbacké biir Mbacké électorat benn bokk yaakaar dafa séparé wu Pape Moustapha Diop mi nekkoon ci galo jamono ji moom tim ber na liste boppam ay ndaw dagg topp ko sëñ Mbacké fay ay ndaw dagg topp ko ah? Euh, Omar Ndiaye Angloma kenn boolewu ko ci liste yi moom ti ma nga mer taxaw jàpp boppam nekk dakaar ñëwul campagne si euh, pré campagne ñëwul ma nga toog fa mu toog euh, mbir mi vraiment dafa pëccëxoo ci Benno Bokk Yaakaar damaa bëgg a waxal waa Benno Bokk Yaakaar li leen naqari ndax ñoom fi mu ne nii mënuñ ko wax man maa leen ko mën a waxal président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar ñi la nekkal fii ci Touba ak ñoom ñu si bëri ci ñoom dañoo mer bu fut ndax dañoo jàpp ne dañ leen wara a te recevoiru leen ñoom dañoo jàpp ne dañoo yeyoo considération te gisuñu ne jox nga leen benn considération bi lii mooy mbir mi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm